nuyoo bu baax a da yéen ñi nga xamante ne yéen a safoo Bambilor info tey nag dañu wàcc sur le terrain fas yéene laajte euh, ñi nga xamante ne moo moo di sénégalais yi ak sénégalaises yi euh, nan la ñu gisee góor ñi nga xamante ne nii dañuy xool euh, seen wasabu jabar ak jabar ñi nga xamante ne dañuy xool li nga xamante ne moom moo di seen wasu seen wasabu borom kër ñu bëggoon xam rek nag tey population bi góor ñi dañuy défendre seen bopp wala jigéen ñi dañuy défendre seen bopp léegi léegi lay doon boo leen ma toppee rek sama micro jigéen jigéen ñi comme góor ñi ñoom tamit ñu wax ma lan lañ ci xalaat. ginnaaw bi ñu la nuyoo ba pare ñu fekk la fii ñu bëggoon laa laaj rek benn question bu simple nag ñu bëggoon xam rek est-ce que borom kër war naa nekk di xool wasabu jabaram. waaw soxna si ñu ngi leen di fay man de sincèrement parlé sama sama jabar moom damay xool whatsapp moom day xool sama whatsapp. tamit parfois du am ay erreur yoo xam te ne yaa ngi ko ciy gis sa whatsapp bu jabar. non wax dëgg yàlla ma gis benn erreur waaw sincèrement parlé. Mam tamit mam musikis gis benn erreur parce que xool sa mu ngi dugg ci yenn code je pense sama téléphone benn code la am moom xam na ko am amul code waaw bëri na ay euh, borom kër yoo xamante dañuy nëbb euh, seen wala seen whatsapp lu nangu benn yoon seen jabar di ko xool xam nga ñoom ñoom par exemple li def ñoom la engagé quoi sincèrement parler pour maandu rek man li def man la man sama jabar day sama whatsapp damay whatsapp loolu lan ngay conseillé ñooñu nga xamante ne dañuy nëbb seen téléphone pour seen jabar bañ a xool seen whatsapp ah mais su nekkee dañ bàyyi ko su nga xam ne peut être seen la loolu bokk ci infidélité la bokk wala nëbb sa sa sa téléphone sa jabar wala nëbb sa téléphone sa jëkkër non du ma ne infidélité la parce que mën nañ ci ay secret yi nga xam ne mën na bañ a nekk affaire u doxaan wala dara mën na nekk yeneen secret yi nga xam ne peut être ñoom lay engagé whatsapp kay xanaa kuy dem ba koy nëbb affaire secret xanaa secret ah soxna si xam nga nit mom mëno xam sa bop xam keneen té mën na am sax peut être doo xam sa bop 100 man man man man li def rek man moma ma engagé quoi mais li keneen def ci négam sama dimension tollu pour xam ko quoi. <laughs> su nekké su nekké ci def safaan nañ ko bàyyi rek su nekké su nekké nak seen vie privée la li nga xam ñom la engagé peut être lool ñom la. est ce que borom kër war naa xool téléphone jabaram. wa lool du dara bu ngeen ko sékké wala ku nekk am ci sa morom confiance loolu dara nekku ci. confiance boobu nag dafa mel ne léegi dafa manqué ci biir néegu sëy. waaw loolu de moom bari na ci parce que xale góor yi léegi moom mooy loolu yaa ma gën xam dañoo xam nga góor moom su demee ba bañ jabaram di xool téléphone am rek dafa fekk dafa jubut jigéen bi même chose parce que li am ci góor rek moo am ci jigéen waaw parce que couple daal confiance daal moo ko lal waaw couple moom. ñaar ko sekk. est euh, borom kër bëgg a xool sa téléphone. non man moom parce que jànguma sama téléphone sama borom kër lu ma xamul moom laa koy wan te tamit du ma jël benn comme appel duma def loo xam ne tamit du ko yëg ci sama téléphone lu may def dama koy laaj bu ma nee defal ma def bu ma nee lii neexuma dama koy bàyyi. da ngay xool tamit rek mais man moom moom su téléphone am soo dana mën naa jël damay jël wuyu ko. bu dee góor ma ne ko xaaral dafay sangu bu dee jigéen ti ma ne ko xaaral day sangu non bañaa fiir ku bëgg dangay ngay fiir mais fiiraa ngi eggul ci wax téléphone parce que nit ki mën na soxla sa jëkkër cadre liggéey wala mu soxla ko loolu dara loolu du ñàkk mais comme exemple du ñàkk parce que doomu aadama doomu aadama rek ngay faanu mu guddi ak bëccëg nangu woo mu xool sa téléphone am na lu nekk ci biir soxna si ñu ngi lay ziar di la ñaanal jàmm di ko saako ci bu baax a baax carrière bi ñun ay safari la lan dañuy dawal béton ak suuf camion daal la dawal moom waaw ku soxla béton ak suuf tamit boo ñëwee après ñun danay jaay lépp daal. ba xam jabar war na mën a nëbb. whatsapp am borom këram. ah bu fekkee jabar ju baax la war ko koo nëbb bu fekkee jabar ju bon la nag war na ko koo nëbb waaw. bëri na ay jigéen yoo xamante ne dañuy nëbb seen seen seen i code seen borom kër bëgguñu si benn yoon seen seen borom kër xam seeni i code loolu pour nga yow nga yaakaar ci infidélité la bokk wala ci lan la bokk. non loolu moom bokkul ci àdduna soxla si. gis nga ki nga xam ne moo la bëgg nga bëgg ko te la tax waroo koo nëbb dara comme que moom nëbbu la dara te bu xëyee gont takk ay dàllam yow yaa tax bu ñëwee waroo koo nëbb dara. comme noonu la amee tamit ay góor yoo xamante ne bëgguñu benn yoon seen i jabar di xool seen whatsapp. non loolu du yoon non loolu du yoon. ndax gis nga jigante jëkkër ak jabar dafa nekk loo xam te dafa compliqué ta dafa dangereux tamit képp ku ci wax tamit na nga ci wax loo xam quoi. yow sa sa whatsapp sa sa jabar dina ko xool. non wax dëgg yàlla amaguma dara moom. man boo ko amee mooy sama cap cap yow bee mooy sama jabar. <laughs> boo ko amee est-ce que sama jabar lu mu def rek baax na man bëgg naa ko. di nga ko jox sa whatsapp mu xool li ma la amul amul feeñ fayete lu mu bëgg mu def rek neex na ma man. <laughs> merci beaucoup ok madame jaajëf. soxna si ñu fekk la fii eh, nga daal di toog di daan doole ñu bëggoon xam rek fan nga nekk man maa ngi dëkk Daara Cubu ci penc bi voilà dëkk maa ngi tudd Daba Fall déedéet jigéen waru koo def ndax jigéen bu ko def rek di nga ci gis lu la métti ndax booy vérifier sa sa portable jëkkër moom heure boo ko defee rek di nga ci gis lu la métti man mii dal na ma ma am ci lu ma métti nag. boobu ba dama ko tijji gis ci lu ma metti boobu ba tey nag gis ci vocal bu ma neexul waaw moo tax boobu ba tey da di ko envoyé di envoyé ay photo mu metti ma trop ma xam ne loolu léegi mun sama borom kër ma xam ne loolu bu yàggee boo koy gëstu day yàq sa sëy mhm. bu ko defee nag laalatuma ko xoolatuma ko ma nekk sama bopp rek mhm, sa tamit est sa WhatsApp sama borom kër moom day pareen saa day xool sama whatsapp day xool sama téléphone. ah mosu cee gis lu ko métti moom ndax man lépp lu may def rek damay xool sama digganteek sama borom. gis ni tamit infidélité bëri na euh, euh, nekk si ak sa borom kër mu lay nëbb euh, téléphone am téléphone oh, bëggul benn yoon xool whatsapp am loolu nga gis yoon la wala. loolu du yoon du yoon léegi góor ñi léegi kenn bàyyeetul sa téléphone sax booy tuur ndox sax da nga koy yóbbaale ci douche bi. mbiri mom ci goor ñi rek la nek goor ñi mom ñoy laqut ñoy laqut fu ñu toll am na ci ay jigéenam nak ni goor ñi jubadee non la amé jigéen ñu jubade waye na nañ ci yalla mussal boobu boo bëggee sey daal bu xool sa téléphone jëkkër looy conseil yéen ñi nga xamanteni duñu nangu benn yoon ya borom kër di xol seen téléphone loolu mom boko ko ñak jubla rek ndax jigéen mom bu jubé mom téléphone am mën nga ko bayé fu la neex nga dem man sama téléphone dama koy def bañ naa ko ba dama ci def xool man nag du ma xool téléphone waaye moom bu xool day xool sama téléphone waaye mosu cee gis lu ko métti. yow daal yaay xool téléphone ko gis yow li dëgg la te xoolatuma ko commencement bi doon naa xool booy doog a sëy nekk xale waaye xoolatuma ko maa ne lu waaye def rek boppam. waaw soxna si ñu ngi lay nuyu bu baax. ah ñu ngi lay fay soxna si. li bëggoon xam rek dëkkuwaay bi fii. Ah, dëkk bi de fii dëkk suñu Fall la moom ñu koy wax Medina fii moom dëgg yàlla am na jaam am na salaam amul benn problème arma wad est-ce que euh, jabar wala jeuker warna meuna xol telephone xool téléphone jabaram. déedéet déedéet nit amna fo xamne bo fa duggé da ngay li amna fo xam da waru fa dugg te telephone jeuker bu soné waroo ko wuyu man sama jeuker telephone day sonn way duma ko jël ndax amna lo xam bo bo wuyo nga sem lo xam du la neex da ngay mandu bu soné ba suba bu ko jël bay ko bu néna na ma sama telephone am nga droit wuyu waaw. bu fekkee nag euh, du soxna si la parce que tamit borom kër. wër te wuyu am. muy góor ki jigéen ki. nit daal ba wóolu sa bopp rek mu neex ku ne daal da ngaa war wóolu sa bopp sa jëkkër da laa wala wóolu sa sa sa jëkkër tamit wóolu sa jabar ku ne daal fu war wóolu boppam. bëri na ay yoo xamante ne nii ñu ngi am lu ci mel ni ay sëy yu tas lépp euh, booy seet ci whatsapp yi lay jóge waaw nga gis euh, sa borom kër muy wax ak jigéen te du la neex loolu mos na laa dal. waa jigéen moo xam ku bëgg fiir sa téléphone ndax tey jii sa téléphone boo gisee tamit sa jëkkër wàcc war waxtaan ak yow ma nga toog si whatsapp bi di wax sa xol day laaj ndax ñëpp a fiir boo gisee muy ngunum il faut nga dem na ko yow kan ngay waxal li ngay wax lan sàmmta yaa ngi si whatsapp di wax yow li ngay wax lan la ku bëgg fiir mos nga jàpp muy wax ak jigéen boo xamante ne nii man sama yoon nekku moom man du ko lijjanti sax bu ñëwee sama yoon nekku si moom wóor na yaa suñu waa kër nga waaye du ma ko lijjanti mais moom dina la lijjanti waaw waaw mooy sama jëkkër mu lijjanti ma moom man ndax góor yow jigéen yow jigéen góor li mën jigéen li mën a muñ góor mënu koo muñ jigéen góor ma mën na am droit fu mu dem doxaane waa jigéen amul amul droit am jëkkër am far loolu amul droit jigéen def ko waaye góor ñi moom mën na laa takk tëdd si kër gi dem di felfelaan fu ne njugg fa waaye jigéen moom amul droit am jëkkër am far loolu baaxut ñu ngi si toj di tax def lu leen neex. di am far waaw di am wa am na. am na jigéen ñu koy def moom dëgg yàlla am na waaye man de du ma ko def ndax amu ma téléphone sax